sëñ Mara asalaamualeykum wa taala wa barakaatuhu li damay dox li tàmbali ginnaaw sant yàlla julli ci yonent bi sant Cheikhul Khadim di wóolu Cheikh Abdoul Ahad mu ngi leen di siyaare baax a baax di jiital ci nuyoo ak siyaar bi kilifa gu baax gi toog Serigne Hassan Mbacké mu Serigne Atiq moom Cheikh Mouhamadul Fadal ñu kilifa ak jataay bi dama toog sëkk ci zahir ak ci baatin yal yàlla guddal saw fan yal na yàlla wéeral say cër sa yéene ci Cheikhul Khadim yàlla ki def la kawe sa njortu barkam xasida yi di nuyu suñu jëwriñ Serigne Khadim Gueye ñi ñi fi jaar li ma ta wax lépp ci moom wax nañ ko si bilax nag daa waxoon ni bu maani teewee moo ni randol te li may bëgg a wax dama bëgg ñi ma wër ak ñi toog sama wet ñëpp toog déglu ma bu ba fi jógee sëriñ boobu moo fi jógee kenn du xel yar ci li muy bëgg a wax mooy nit bu jëfee lu baax te jëfe ko nam ko war a jëfe ak fam ko war a jëfe ak kam ko war a jëfal waras na ko sant ngir jëm yi ka tax muy jëf ñu sëñ Xaadim daa am taw feex ci xasida sëñ Tuubaa yi du ko jàng njëkk am tawfeex ci ñu tuddee ko Seexul Xaddiim ci la tawfeex tàmbalee fi la mën a yem dëgg am tawfeex di jàng xasida yi sëñ Tuubaa yi am tawfeex dëkk tuuba déglu déglu sëñ Tuubaa defalaat ko tawfeex mu am fii kër ci Poroxaan tawfeex yi mënees na koo lim yu bari lay doon yoo xam ne moom ko ci war a sant sëñ Tuubaa la ndax ku santul xarab ndax jàng yàgg na fi njëkkiwu ko jàng am na lu yàgg mu door a ñëw jamono yàlla na yeex dana fi jóge jàng di am waaye suñu borom da ko ca defal tawféex du ngeen ma laaj tawféex ji mooy jan mooy jan sëñ Mara tawféex ji mooy mbooleem ku génn ci moom ku jaar ci am di jàng xasida àddina sépp dégg na la ci xasida yi loolu nag tawfeexi sëñ Tuubaa la dëgg la dëgg la loolu lu lum jëf tawfeexi xayri mahbudi سكوري لدى داري وفي البحر والبيد لرب كريم واس خير محبود سكوري لدى داري وفي البحر والبيد إلهي عكيمنا أنسو تفضلي حني ومخن جو وجود تابيدي إلهي عكيمنا أنسو تفضلي حني ومخن وجود تابيدي نفعني الهدى هدورا وساخلي مرامي بلا كد وديخي وتسديدي شكوري له بالخلب والجسم سرمدا وليجاد بتوفيق فضلا وتسديدي توباك كما قال يالنا قد فالامن مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بك مرحبا مرحبا سنغوم سنغيا مرحبا مرحبا مرحبا أنا صبي شيخ منتخب بسيرو يا النفيا مصطفى مرحبا مرحبا sangoo say lay la la yéen aw leen jàngkat yi mara ba mara sangoo sangi Mustafa Serigne Fall nu diglu te na lay lay la la soo ñaan ci way wi ne yow doo ku naa ana soppe xaadim gay te ñëw fi ci xaadim barama may kaf tawe dafa damay ñaan la mboolem ko dem laay laay la laay ñu fi ci Xaadim Gey damay ko tawe damay ñaan sëriñ ñëw fi ci Xaadim ñëw fi ci xaadim géy damay koog daabe te ñëw fi ci xaadim géy waaw waaw damay koog daabe yéen amu leen te ñëw fi ci xaadim géy loolu dëgg la damay koog daabe te ñëw fi ci xaadim géy